ñu ngi dalal tey ak mbégte mu rëy président Mbagnick Diop njiital mouvement des entreprises du Sénégal président ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci euh, jot bi nga ñu may ngir ñu dalal la ci matinal bi tey. Fatou maa ngi lay nuyu aussi euh, toujours damay am mbégte jàkkaarloo ak yow et puis euh, ma jël sama nuyoo teg ko sa loxo pour wax rédaction bi yëpp pour service bi yëpp. di leen féliciter aussi si liggéey bi ngeen di def tey yéen yaa leen ŋànk rajo bi. kenn mënatul wax paysage médiatique bi ci doo tudd mi FM kon nag danañ la jàlloo ñu kër ma leen di gërëm di leen sant c'est toujours damay am mbégte jàkkaarloog yow. jërëjëf président mbégte mi itam si man la ëppee alors ni ma ko waxee sànq ñaari fan moo des ngir ñu yegg ci soirée bu mag euh, bi di corridor nga xam ne jamono yi moom rek la ñuy waxtaanee alors euh, ñaari fan moo si des fan ngeen toll ci wàccaay yi xam nañu ne at mi yëpp daanaka ci ngeen di liggéey waaye bu desee ñaari fan ñu njort ne xëy na ci la yëf yi gën a tar. métti na trop nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg ñu ngi daw rek. xam nga kuréel dafa diis organiser ko dafa laaj ay moyens yu yu bari sa loo xam ne ne àddina bi yëpp moo ci teg seen bët ba pare nit ñi ñu jógee fu nekk pour ñëw si événement bu mel noonu donc dafa diis mais ñu ngi sant yàlla ba am équipe boo xam ne ne formé naa leen boo xam ne ne ñoom ku lu ñëw rek ñu dégg ko donc di si sant yàlla ñu ngi am ñort bu rafet que fu mu doon jaar dina fa jaar mooy yàlla may ñu si nam comme ni ñu mayee nam si quinze éditions yu mujj yi. ñu ngi ci seizième édition fukki at ak juróom-benn. MEDES tànn ren consécration comme thème ku ne xam na ni thème bu MEDES teg rek xalaat yu yaatu ñoo nekk ci ginnaaw lu tax ren ngeen tànn consécration. li tax ñu tànn ko dañu xalaat ne def nañu fukki at ak juróom corridor yi yëpp yàlla may ñu si ndam mu nekk succès ba tey amatuñu dara lu ñu war a prouver malgré que ñu ngi ñuy toppandoo ku nekk yaa ngi jéem a def comme lu ñuy def mais roy du niroog donc at yi paas yëpp comme ni nga ko waxee yow gis naa da ngay bu baax. thème bu nu jëlee rek fekk ñu xalaat ko xootal ko ba xam ne ne bii moom moom méngoo ak li ñuy def. nañu les valeurs du succès def nañu le culte de l' excellence def nañu l' original l' original bu ñu koy def loolu moo taxoon parce que at boobu moom dañu dañu dañu sonnoon euh, euh, saa yu ñu yeewoo gis ñu kenn ku créé euh, tudde ko nangam or nangam or nangam or ba toujours dama naan africain ak sénégalais. dañoo jéem a xalaat di créer seen bopp xamul lu nit euh, xalaat togg ko di fanaan moom di yeew moom ba taxawal ko ba yàlla jàppale ko si muy dem yow nga jóge fële ñëw jël loolu changer tur bi di def la même chose da ngay xajamal lu mu def. kooku sa même bu fekkee ne ne war na am satisfaction ñu koy toppandoo parce que lu lu rafetul lu baaxul kenn du ko toppandoo ah mais liñ koy defee moo méngoowul ak luñ ko war defee ba nga xam ne ne at boobu. nu jël thématique bi l'original mooy li ngay wax rek dañuy xalaat euh, ba nga xam ne ne euh, thème bu ñuy jël day fekk mu méngoo jamono moo tax ren nag lu méngoo jamono mooy consécration consécration moom boo koy bu ñu koy tas mooy wër nga def nga li nga war a def yëpp ba nga xam ne daal foofu la yem mooy daal foofu la mën a toog romb waa kay loolu mooy consécration moo tax ren ñu xam ne ne def nañu lu nekk muy fii muy bitim réew ma nga xam ne daal thème boobu ku ko dégg rek dina xam ne ne lan lay lan lay tekki boo ko tasee da nga xam lan lay tekki donc moo tax ñu jël consécration ren. Euh, at mu jot itam ngeen indi lu bees euh, ci corridor ak seen yeneen événement yi waaye corridor xawatina ren lan la ñu mën a xaar lu bees euh, ci 16e édition bi. waaw ren li gën a li gën a nar a frappé nit ñi mooy dañuy def benn scène bu ñuy wax scène numérique scène virtuelle. boo xam ne ne da ngay gis rek ay ay écran ay ay jeu ay luy romb doo xam daal doo comprendre waaw doo xam fu mu jógee waaw dangay mel ni ku nekk Taj Mahal wala ku nekk feneen daal donc moom la ñu indi si yàlla daf ñu euh, jàppale ba nga xam ne ne Hollywood moo ko war a njëkk a def si Oscar yi mais Covid bi moo tax ñoom mujj ñu ko def kon Afrique lañ koy jëkk defee lu ñuy wax scène numérique donc loolu si beesal yi si la bokk ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ne dañu am du ko def ba pare aussi même plateau musical bi dañ ko relever ren. jël ay artistes yoo xam ne si bëri mosuñu euh, jouer si kur yi ñu yàgg ko sàkku ñoom tamit mais dafa jotul woon. ak ñoo xam ne ñu ngi si plateau bi c'est boolewul leen si communication bi dañuy bëgg mu nekk békteel nit ñi ñëw. am surprise parce que ñooñu du doon kenn du leen woon xaar si kur yi. donc innovation yi fàttu bëri na comme at bu jot dañuy def. alal bu takku si seen yi si décoration bi si approche yi si lépp daal loo xalaat dañ koy def parce que dañu bëgg a nekk toujours dans les standards internationaux ma nga xam ne ne kur bi boo toogee sa salon France di ko seetaan wala Amérique wala asi foo munti toog da ngay mel ni que yaa ngi Hollywood cest dire que amul bu ñu commencé vingt heures trente ba joxe top départ bi amatul benn moment boo xam ne dafa am hésitation wala flottement lépp dafa am fil conducteur même ñi ñëw di def cér maître de cérémonie ay ñu xariñ lay jël bu jigéen ki koni euh, la bu Canal Plus am expérience mais malgré ñoom bu ñu ñëwee dama leen di liggéeyloo une semaine ñuy répété pour ba ñu juum c'est lu ñu war a wax man maa koy bind script bi ñu xam exactement lu ñu war a wax ba nga xam ne ne yëpp daal day jaar yoon ba xam ne ba toogee di ko seetaan da ngay kontaan sa yow en tant que africaine wala africain wala en tant que euh, sénégalais wala sénégalaise mais man je préfère parler d' africain d' africaine d' africanité parce que dama ne mën ñu tëju rek ñun suñu biir noonu euh, lu ñuy def def ko ñun suñu biir euh, man suma gis-gis dafa yaatu sénégalais laa nag fi laa juddoo fi laa cosaanoo mais damay considéré sama comme citoyen du monde mooy fu ma dem si àddina bi rek mën naa fa dëkk moo tax may liggéey ak àddina bi yëpp ma nga xam ne day feeñ si événement yi may def parce que samedi américain yi déjà genn gi yegg si nañu ñu ngi Dakar da nga gis français yi di nga gis euh, dubayote ñu jógee Dubaï di nga gis ñu jógee Bruxelles da nga gis ñu jógee Genève da gis ñu jógee Abidjan ñu bari ñu ngi jógee Abidjan ñi nga gis ñu jóge Sud Afrique donc loolu loolu mooy àddina ku nekk loolu ngay ñaan yàlla mais loolu pour nga am ko mooy crédibilité samul crédibilité ñooñu ay nit ñu am doole lañu kenn mënul njëw këf leen yow yóbbu leen déedéet am ñoo xam ne dañuy ñëw samedi ak seen avion am na ñaari patron banque yu mag ay nigérien lañu seen banque yi banque yi gën a mag Sénégal lañu bokk kilifa yu mag a mag yi dañuy ñëw ci soirée bi ñoom ñaar ñëpp avion personnel la ñu avion bi day ñëw xaar ñu ñëw si soirée bi jëlaat avion ñibbi xam nga loolu da sant yàlla ah da ngay sant yàlla donc euh, ñu ngi sant yàlla daal di gërëm aussi xale yi may liggéey yëpp nekk xale yu xarañ man boo nekkee man dama lay formaté ba nga xam ne ne bu fekkee ne lii mooy nga jàng boo ñëwee si man li jàng damay fexe sa nga xaw ko fàtte def leneen sa leneen loolu dina la jëriñ parce que dafa am solo àddina dafay dox dox boo xam ne ne nit ki dafa war a polyvalent fu ñu ko dugal rek wala fa mën a nekk liggéey donc loolu moo tax xale yi ma wër yëpp xale yi xarañ yàlla jàppale ñu ba li ñuy nas yëpp daal ñu si sant yàlla ñu ngi si am nam euh, bu mu desee fukki fan ak juróom amatuñu benn place lépp lépp réservé nañ ko donc euh, dañuy sant yàlla booy def loo xam ne ne yow mu li ngay def moo gën a cher si Afrique amul beneen dëkk bu am loolu sa bu desee fukki ak juróom amatul benn place bu des mais da sant yàlla ah parce que bu loolu affaire u caxaan la wala affaire taxale yooyu non du ñu am loolu donc ñu ngi sant yàlla bu baax dañuy sonn nag parce que ñetti fan yi ak ñaari fan yi dañuy sonn àddina bi ñëpp a ñuy woo ñëpp a bëgg am place ñëpp bëgg am ay taabal mais amatul mu mënuñu comprendre loolu que amatul même bu ñu bëggee mënuñu ko waaw xam nga loolu loolu masa daf may jaaxal euh, Fatou loolu dafa may jaaxal dama si doon waxtaan sax borom réew bi mun daf may tooñ naan ma Corée c'est irrationnel mooy loo xam ne kenn mënu ko expliquer. parce que kenn mënu ko succès bi la ñu kenn mënul expliquer donc dañu war a nangu rek dogalu yàlla xam ne yàlla moo dogal loolu mais nag yàlla yàlla bay sa tool. fekk ñu tamit ñu ngi liggéey. justement succès yooyu yëpp teewul à côté ñu ngi leen di jéem a yàq di leen jéem a galgal ñeneen ñi di jéem a toppandoo naka ngeen def ba tenir ba yegg si tey seizième édition te macha allah euh, sans faute. mooy un mental fort. mais si wolof dafa naan il faut nga am bopp bu dëgër. il faut yow sa bopp nga mooy bul comme li koy xale yi di waxee rek bul faale bul déglu bu toppatoo li nga war a def rek def ko mais def ko bu baax man dama naan toujours ak ni may liggéey ak ñi ma jege yëpp lépp looy def teg leen ko si dëgg parce que dëgg rek faatu moom mooy mucc ñun dañ ko dund bu ñuy taxawal MEDES ba léegi keroog wala nañu film bi dimanche bi passé TFM àddina yëpp seetaan ko àddina yëpp woo ma parce que xamuñu woon sax ñun lu ñu liggéey yëpp moo tax image baax visuel baax parce que dafa wane suñu facette yëpp. mutuelle bu ñu jëkk bu ñu jëkk ubbi jëkk ubbi euh, euh, pépinière des entreprises ubbi nañ ko parce que 16 ans Sénégal yi soog a ubbi premier pépinière. forum de l'emploi diaspora des affaires ñu dem capital wër àddina bi yëpp Paris New York Montréal euh, Genève fu nekk taxawal ba léegi amul ñaari fonds benn fonds du secteur privé moo am ñu ñoo ko taxawal dama naan sama naa ko taxawal mooy Fogasim ak le salon de l'entrepreneur euh, salon start-up yi ak yooyu yëpp nga xam loolu yëpp liggéey na aussi peut bu ñu def bruit yu bari bon nit ñi nag li ñuy gis rek mooy peut-être euh, euh, manifestation festive yi dañuy xalaat ne loolu moo mooy moo mooy suñu cœur de métier déedéet ñun dañuy liggéey pour koom-koomu dëkk bi sa jàppale nañu ay ndaw jàppale nañoo xam ne sa duñu ay ndaw ba xam ne tey ñu ngi am ay junni junni employé fexe nañu aussi ba ñi bokk si ñun ñu yombale leen ñuy signé ay partenariat ak ñu nekk si koom mu ay Europe ay Amérique ak fu nekk donc loolu yëpp keroog bi ko film bi génnee nit ñi dañoo jaaxle kilifa boo xalaat rek wan na ma parce que xalaatuñu woon ñun nag liggéey nañu loolu yëpp Pierre Goudiaby Atepa maa ngi koy ñaan mu autorisé ma ma wax loolu rek parce que dama ko tudd si film ba pare ñu gis ko ñaar yoon si film bi. démb nag dama doon añ ak euh, ambassadeur France euh, euh, Lagon 2 benn restaurant. ñu pare waaw ma gis ko mu mu mu mu feeñu ma ma yóbbu ambassadeur bi présenté ko ma ko kii c'est le comme li ma lay wax rek. générosité dafa baax. waxuma ko c'est le grand plus grand architecte du Sénégal dama ne ko de l'Afrique. fekk fu ñu taxawoon noonu si restaurant bi ma ne ko c'est lui qui Bessaaw lu mu taxawee noonu xam nga xam nga moom mu kontaan. Mm. et puis dama wax aussi sama interview bi bureau bi mu jëkk am Paris moom ma ko jox. te boobu ñu ngi gën a nekk xale ñun. moom mu am bureau Paris mais gis li ñuy liggéeyee mu jël bureau bi jox ma ko démb tamit ma ma seedewaat loolu. Mm. ne peut-être bi kenn gëmuñu walla kenn xamuñu fu jëm. Mm. moom amoon na gis-gis boobu ba ne ah comme da nga bëgg ubbi ay bureau Euh, bitim réew man am naa benn bureau Paris galerie la defuma fa dara xaaral ma jox la ko mu jox ma ko si biir champs loolu nag doo ko fàtte. soo gisee seen nawle di góorlu ñaan na ko man su ma gisee koo xam ne xaw ma ko sax ma gis li muy def si télé. Hmm. wala si journaux wala may romb di gis damay kontaan sama biir xol dama naan kii kat mi ngi góorgóorlu jàmbaar la. loolu moo am solo parce que addina bi du dara dafa gaaw a jeex. lu baax li ñuy def rek moom moo fi des mais nekk si addina bi di mere ñëpp. doo yéene kenn càmm ak yooyu amul njëriñ. amul njëriñ xëy ñu ñëpp def waaw te dem moom dañuy dem. alors yéen yemu leen ci kori yéen ngi ci ELE euh, mooy version internationale. Mm-hmm. nga bëgg ba tey foofa wane ci xar kanam bu Afrique boo xam ne wute na ak bi ñuy wone yéen a ngi waajal itam ELE yi. waaw ñu ngi waajal ELE yi ELE yi mooy African Leadership Award kooku ñu ngi koy pare incha feek ñeenti weer euh, mooy novembre. le 27 novembre lañ koy def New York lañ koy defee fu ñuy waxee Yale Club Yale Club nag dafa nekk benn bërëb boo xam ne ne ci bërëb yu gën a riche daal euh, Amérique si la bokk. xam ne kenn mënu fu dugg. waaw ñun ñu fexe ba ne foofu lañ koy defee donc loolu yëpp déjà sant si yàlla la parce que muy tubaab muy américain koo ne si Yale Club daf lay xoolaat parce que Yale Club président Amérique yu mag yëpp si ëpp foofu la ñuy génnee si université bi. ñoom lañ ñoo créé club boobu donc bu nekk benn club bu select mun si yàlla yóbbu ak jàmm fa lañ koy defee. so loolu dañ ko def première année bi àddina yëpp seetaan ko euh, bu ñuy mujjee def bi édition bu mujj bi def Paris y avait pratiquement plus de quarante nationalités c'est comme lu ma la wax Afrique cinquante quatre pays la boo demee ba mën loolu. di indi loolu si ay nationalité yu bokkul ñuy jóge fu nekk si àddina bi di ñëw dañ siy sant yàlla aussi donc ñu ngi koy préparé bu ñu paree si lii rek. Euh, ñu ngi préparer loolu balaa loolu nag ñu ngi def aussi ak euh, patronat français moom tamit seen mooy patron patron français donc ñun tamit ñu ngi préparer ak moom lu ñuy wax FIEF. FIEF mooy le forum international des entreprises francophones. donc loolu yëpp aussi dañuy sant yàlla rek ba nga xam ne ne euh, tubaab yi ñu ngi tàllal loxo xam nañ ni kat xam ne lu ñuy def am nañu fulla am nañu fayda donc ñu ngi sant yàlla daal Fatou ñu ngi sant yàlla et puis boobu aussi. ñu si invité euh, Sénégalais yëpp ak champion yi champion africain yi parce que Afrique dañuy tàmm di wane feebar yeeg guerre yeeg coup d'état yi sa Afrique du loolu am na ay jàmbaar ñi si nekk am na ay champion sa dëkk bu nekk ak continent bu nekk da nga soxla am ay référence ay symbole xale yi na ah man su ma màggee dama bëgg a mel ni Fatou Thiam Ngom dama bëgg a nekk journaliste dama bëgg a nekk directrice de l'information dama bëgg a nekk ku ñu ràññee dama bëgg lii dama bëgg laa loolu dafa am solo mais dëkk boo xam ne amul benn référence amul benn symbole ku jóg ñu dagg sa bopp waaw waaw donc donc c'est pas la peine mm. ah mënuñu ñun ñëpp ñu médiocre kon duñu dem fenn de ñàkk gëm yàlla mooy ñàkk gëm que nit kii kat yàlla am na lu mu def si moom ku nekk yàlla am na lu mu def si yow donc nangul ko nit ki rek message bi am na solo ñu jeexal ak beneen message ñàkkul booy lancé en tant que homme d'affaires en tant que aussi sénégalais ndax fi mu ni ñu bari ñu ngi tiit ci wàllu koom-koom bi Covid 19 bi gis nañu ni mu jugaatee looy wax askan wi en tant que aussi ku teewal patronat bi ak secteur privé bi ci force Covid 19. lu mu leen di waral mooy nañu dem ñàkku yi kooku daal mooy première protection. <laughs> Sénégal yi yëpp nañu dem vacciné wu. parce que mënuma comprendre nit ji ji naan est-ce dañu may jox virus bi vaccin yi mooy première protection bu fekkee ne amoo benn commodité boo defee ñaari vaccin yi mais à 70 pour cent 80 pour cent tu es protégé donc bu fekkee da nga am commodité tamit nga def vaccin bi au moins tu te ak les mesures barrières mais léegi yow ba booy dox biir dakaar wala feneen da ngay jaaxle sax yow yow yow bu soolee masque sax dañ lay xoolaat mm-hmm. am na benn dëkk boo xam ne du ma ko tudd <laughs> dama fa dem tànjale paase sol sama masque ñëpp dama xool dama mujj a génne masque dugg sama poche kenn solul masque yow bi sol masque da nga leen di jaaxal donc je pense que mesure barrière yi ñëpp ko war a respecter état bi gën a sensibiliser encore population bi ñu xam ne ne daal troisième vague bi ñu wax ko ñàkk ko wax ma ngi fi c'est li ñuy gën a avancé muy gën a développé loolu yëpp nag deux premières vague yi indi na coono yu bëri si koom si yu bëri ba nga xam ne ne xam naa ne moo tax état bi allégé allégé yenn mesures yi wante nag ah xam naa daal il faut ñu dem daal vacciné bu bu ñu vacciné ba pare li des mun nañ ko xool ba pare di respecter mesures barrières yi di jël gel di raxas loxo yi di di soriato euh, loolu daal dina si am solo man maay représenté comme la nga ko wax patronat bi yëpp secteur privé maa koy leen représenté si fond Covid 19 bi donc fexe nañu ba jéem a soulager yenn secteurs yoo xam ne dañ def la parce que Covid dafay impacter secteurs yu bari c'est bu ñu defal tout nànk surtout ñun Afrique bu troisième vague bi ñëwaatee dina metti lool parce que entreprise yu bari fa la ñuy jógee daanu donc ñuy ñaan yàlla daal yàlla aar ñu mosoo ñu ci troisième vague bi. ci ci euh, corridor yi tam di ngeen respecté wax nga ko sànq. Mm-hmm. gestes barrières yi ak yeneen mesures yoo xam ne da ngeen koy jël. ngir xëy na euh, propagation virus bi bañ a aw foofu. waaw loolu euh, dañ ko jël parce que par exemple euh, salle bi ñuy defee événement bi mën na jël euh, mille place mais dañ ko xaaj ci digg bi pour respecter mesure barrière yi moo tax su ñu am problème parce que li ñu am si demande ëpp na deux mille ñu bëgg a ñëw fekk ci xew bi mais il faut que ñun seen bopp ay kilifa lañu ñu wane exemple loo xam ne ne télévision daf koy jël àdduna yëpp di ko seetaan il faut ñu respecter mesure barrière donc ñun matukaay yëpp jël nañ ko waa di si sant yàlla bu baax di ñaan yàlla daal ñu dugg bismillahi rahmaani rahim si événement bi génn si alhamdulilahi rabil alamin yàlla may ñu si ndam may ko Sénégal may ko Afrique nit ñi xam ne ne Afrique du guerre rek du feebar du coup d'état am na ay liggéeykat yu fi nekk am na ay champion yu fi nekk si ñun loolu mënul tax a jóg mooy ñiy liggéey ñu wane leen xale yi xam ne ne dëkk bi ñu dëkk continent bu ñu dëkk am na ay jàmbaar yu fa nekk. jërëjëf président Mbagnick Diop amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinal bi am na yeneen ñu bëggoon waxtaanee waaye du ñàkk yeneen occasion incha allah ñu ñëw si euh, ñu ngi lay ñaanal itam ndam ci corridor bi ngeen jëm 16e édition bi jërëjëf. waaw jërëjëf Fatou ah di leen invité tamit sa rédaction sa animateur yi il faut ñoom ñu ñëw couvrir événement bi maa ngi leen di sant di leen gërëm et puis di leen euh, ba très bientôt. merci jërëjëf jërëjëf Fatou.